c'est ça eh, sama monteur bi nag eh, di am si maa koy remercier di ko gërëm au passage eh, moo ma ne mais grand est ce que yaa gis ni ngay comporté wu juste ma commencé ñàkk du coup ma def deux pas commencé énervé sama neri yi jóg quoi donc de vingt heures trente à zéro heure trente dama daan maa waroon boucler journal parce que ma def ñaari monteur yëpp fa desoon mu xaw metti trop si man dama Euh, di tàng sama yaram am ay sensation yu bizarre may tisoo yi man c'est pas possible ci la ma monto bi ne mais grand soo boo xëyee est-ce que doo dem euh, fi nga xamante ne mooy institut Pasteur xool sa bopp ma ne ko xam naa loolu laay def ma ñëw toogaat sama bureau yor sama BAT yi di corriger mais may gën a saxat di saxat di tisoo di saxat di tisoo affaire bi jaaxal ma. malgré tout j'ai pas tenu à abandonner le navire ma toog ba dugg le journal bi. tal sama auto ñibi buma talé sama auto tamit di dem souvent dama lan tal clip mais kéro dama dugg yëkkati vitre ba sama kër ak ci kër ga né soxna ci man dé sama yaram dafa tagal bu laal sama yaram né mo gis ma tàngaay bi ma taw te di malgré tout tëdd mais pour wudi bakkar gudi gogou yaakar mo ni dina yeewu parce que sama yaram dafa li ci nekkoon man rek mako don sentir ba ay quatre ma gestu gis sama sama soxna ci tok di ma mu ne ma est ce que tu sais que malade man ne ko si mu ne ma feebar ma ne ban heure ma quatre heures du matin moo jot ma na baa na taal sama oto dem euh, institut Pasteur ne ma non comme da nga jógee voyage te di recommandation mooy ko koo gis ay symptômes ay signes yu nga yoo comprendre da ngay toog nga nekk ko wootee ñu jël si la mu ne ma quatre heures moo jot nañu muñ ba six heures du matin ma rappelé six du matin nag la commencé woote. mu jot ay nit expliqué leen symptômes yi ñooñu ne la ok docteur yi expliqué ñu bu ñu ñëwee defal nañ leen fiche bu ñu ñëwee dinañ la rappelé ba sept heures trente mu rappelé waat ñu wax ko même chose ma ne ko xam nga la man laa je ne peux plus maintenir quoi franchement fu mu nekk nii dama bëgg a dellu dama bëgg a dem quoi xam nga mu ne ma noo toogal rek ba huit heures trente ñëw ñu ci laa jël sama téléphone woo sama benn xarit médecin kooku ne ma dans dans dans deux minutes maa ngi lay rappelé effectivement deux minutes après mu rappelé ma mu ne ma toogal. waa waa district sanitaire de mbaaw ñu ngi noonu di ñëw woo naa leen la numéro euh, docteur bi nga nga corona moom ñu ngi noonu di ñëw ñooñu nag jël si ma ñëw yóbbu ma mettre ma en isolement foofu euh, prélevé ma. bon malgré tout yóbbu Mbao wala Diamniadio. non non Mbao lañ ma njëkk yóbbu Mbao lañ ma njëkk yóbbu euh, district sanitaire Mbao ay nit yu disponible fa nekkoon. yóbbu iya, ma foofu mettre ma en isolement le temps ñu prélever sama sama sama ñu prélever ma parce que mënuñu xam ndax ay ndax euh, coronavirus le temps que amuñu résultat wu institut pasteur donc ñu mettre ma en isolement malgré tout euh, sama fièvre bi après sama fièvre commencé waat ci parce que joxoon nañ ma siro ak euh, doliprane donc du coup parce que ñoom mënuñu woon def beneen traitement lu dul xool sama symptôme yi commencé ma le traitement il est symptomatique donc euh, euh, malgré tout keroog jot naa bind sama benn article parce que bu ma doon dem laaj naa euh, docteur bi est-ce que mën naa indaale sama ordinateur mu ne ma mën nga indaale sa ordinateur lépp parce que sama souci mooy fallait que ma am benn parce que amoon naa information yi ma waroon bind il faut ma bind malgré tout ma bind ba si ëllëg si le matin lañ ma confirmer ni effectivement jàngoro coronavirus bi moom ma daloon. Mm-hmm. bu ñu la ko waxee ne am nga coronavirus lan franchement Babacar euh, tey nag mun nañ ko wax mais il faut dire que c'était le plus dur moment de ma vie parce que mënu moom comprendre fan laa ko doon choper parce que man euh, fopp fu ma doon dem yoroon naa sama gel euh, et tout ma doon moytu mais bon après jëm naa remonter un tout petit fu ma ko war jël ma xalaat ni foofu la te jàpp naa ne ba jusqu'à l'heure où je vous parle foofu laa ko war a mën a jël moom. fan la foofu moom Paris la war a nekk c'est à l'aéroport de Paris parce que ñi ma nekkaloon yëpp euh, Angleterre dëkk bu ma demoon ñëw Paris kër bu ma daloon ñu fa nekkoon yëpp ba heure bu may wax ñeex yow amuñu benn jàngoor te pourtant def naa ay contact ak ñoom dama naan toog lekk ak ñoom benn ndab di naanandoo benn atta et donc euh, man maa ngi woon tout temps sama masque et tout mais bu ma ñëwee ba aéroport Paris euh, benn instant. Euh, comme damay binde foofu ma nekk man damay bind samay article benn instant bi ma toogee di bind sama article nag mu am ma euh, benn laxisme laa ko war a tuddee ma dindi sama masque toog di bind donc deux heures de temps yi ma defoon noonu aéroport Paris puisque ñëpp xamoon nañu dans quarante-huit heures France day tëj ay frontière am mu bëroon ay va-et-vient c'était le branle-bas le sauve-qui-peut donc du mu am jaxasoo waaw donc foofu nag laa manqué woon attention euh, ba ma ñibbisi bon ta di ko tamit yalla dimbali na ma parce que man dama ñew 48 heures après si ko joto a ci man man ko ku ma xam xam ni dama bëré fu may duggu dama bëré ni may waxtanal dama bëré ay rendez vous dama bëré ay contact yi may def donc euh, yalla dimbali na ma bu mu ñew 48 heures après la ma la ma yefi dal donc euh, pour revenir sur la question ba faire euh, effectivement bima ko bima ma ni biñ ma waxé ni euh, coronavirus la franchement le monde était à l'envers Euh, pour vous dire vrai, madame craqué on. Parce que euh, je me suis dit, euh, euh Tejini. Danga Joy, c'est Rongon Tourou. Joy, ouais, c'est Rongon Tourou. Parce que je me suis dit quelque part que, euh, et tout le temps que là, am, genre bi buma buma dalé nan la def, duñu xam seen pap et tout. Donc il y a beaucoup de choses tamit, euh, sama sama sama sama bërëb liggéeyukaay, journal bi projet bu la, ni euh, am na ñoo ils sont ils sont pleins d'avenir et tout xam man ma top ci ku jiitu journal bi moy Ibrahima Mbengue Ibrahima Mbengue donc du coup euh, mun naa wax ni maa ne may may chef cheville ouvrière journal parce que baa koy rédacteur en chef nga xam nga rédacteur en chef liggéey bu muy def ci journal donc du coup j'ai pensé à tous ces collègues là tous ces jeunes yi nga xamante ni ñoo fi nekk chaque jour on on partage toute notre journée on passe plus de temps à la à, ensemble que euh, qu'à la maison donc du coup ñoom yëpp laa xalaatoon sama sama àddina don tuki franchement mais heureusement euh, docteur Ndour euh, madame Ndour bi nek euh, eh, eh, docteur médecin chef district sanitaire bu mbaw bi euh, mën naa wax ni psychologue la parce que moom ma njëkk a dalal mu ne ma monsieur ba mu waxee ak man parce que ba léegi ba heure bu may wax ak ñu ak yow Babacar gisuma ko looloo gën a métti si jàngoro gi parce que boo amee jàngoro gi xam nga eh, day am benn distance buy am sa diggante ak ñeneen ñi xam nga donc man bi may ñëw ba ñibbi ba heure bu may wax ak yow nii chaque jour bu ma affaire bi dalee ba léegi damay jox ko ak moom mais musuma teg bët musuma ko teg bët musuma teg bët mais heureusement ak dalam mu jël téléphone am woo ma euh, conseil ma ne ma monsieur Cissé di c'est juste une grippe sévère da ngay dem quelques jours après ñu faj ko xam nga mu jeex mu ne ma résultat yi ma am sa sa sa feebar bi c' est pas aussi sévère que ça mais moom mën na ma wax loolu parce que moom médecin la mais man mi ko doon yëg xam ni j'avais tous les symptômes du coronavirus tous les symptômes du coronavirus lu ma dundoon y a vingt quatre heures euh, sama kër le mercredi dix huit euh, de dans la nuit du mercredi dix huit au au jeudi dix neuf euh, li ma daloon man rek maa xam li ma doon sentir man rek maa xam. léegi bi nga district Mbao bi mbir yi positif yi dañ la yóbbu ca Diamniadio. waaw traitement bi foofu lan ne lan la woon traitement bi foofu ca Diamniadio. Voilà, d'abord c'est le lieu pour moi de remercier euh, tout le personnel sanitaire euh, qui tourne autour du, euh, du coronavirus parce que franchement, ils jàmbaar lañu ay nit yu dal lañu ay nit nga tamit sacrifié parce que les gens bi sont euh, ngay xool ils sont tout le temps habillés en combinaison Ils sont dañuy nous ba fi familiarisé ak yow dañuy ñëw jaar sa tur mais ils ont leen mës a gis doo parce que ils sont tout le temps encagoulés effectivement ñoo gisal seen kanam ndax li ñuy sol seen ndax li ñuy sol donc du coup loolu tamit boo amul doole da ngay craqué wu parce que man tamit vendredi bu bu ma excès foofu benn instant bi ñooñu ñëwee et tout ak seen matériel ak seen truc après ñu dem sama cellule sama chambre non je mënu moon sama rango yàlla def ni euh, euh, directeur général futur média di xool fu ma may may tuur rongoñ mu dalal ma jëm defal bu baax bu mu raccroché mel dañu ko waxante dafa raccroché une minute après euh, directeur publication record tamit ma état tu vois pour vous dire combien affaire bi dalay ak de il faut nga bu euh, général Bamba sama donc du coup de de à Bamba Présent à une personne. donc ce qui veut dire que solidarité bi qu'on autour de moi, madame, dam ko maintenant Babacar euh, euh, euh, traitement bi c'est très simple parce que comme ñëpp xam nañu ni amagul vaccin anti coronavirus li ñuy def traitement symptomatique dañuy il yow li ngay souffrir déjà man dama doon sëxët dama doon soj amoon fièvre donc lu ñu njëkk je def mooy jox la benn sirop bi bi atténuer saxat bi euh, jox la euh, euh, kii nu mu tudd encore vitamine C. Mhm. pour booster la pour mu lay ñu lay booster ak dans un premier temps table dañ lay jox paracétamol. Mhm. nga doon jël deux matins. mais joxuñ leen chloroquine chloroquine bi si après la chloroquine bi ñoy parce que chloroquine bi il fallait du docteur Raoul bu euh, euh, hôpital La Timon Marseille euh, expérimenté ko donc il a fallu que docteur du sénégalais tamit adapté décision bi de ñoom ñu def commande parce que man buma buma bu comme dama suivre information bi bu ma ba fofu femme bu mu ñëwee loolu laa ko njëkk a laaj ma ñu ay commande mais tamit du non lañ koy joxé parce que dafa am traitement bu ñu koy effectivement 72 euh, heures après ñu commencé ñu ko jox man bu ma ko commencé jël wax dëgg yàlla ci laa gis amélioration une nette amélioration parce que affaire bi duñ ko def duñ la joxe overdose da ngay jël matin benn comprimé midi benn comprimé le soir benn comprimé donc benn tablette lañ lay jox nga nga jëm ko gérer ak euh, sa sirop bi parce que sa xët bi moo lay sonal sax poumon bi la feebar bi poumon bi lay jàpp. moo tax ñu naan euh, ñi nga xamante ni dañuy dañuy tux nañu moytu bu baax xam nga fa bi lay jàpp même ñun ñu dul tux sax booy sëq da ngay sentir ni lii ba réalité Babacar virus bi poison la quoi au fait yow boo bu la dalee yow boo feebaree da ngay xam ne yow dafa dafa am lu nekk sa yaram boo demee ba tane ci naa même pas besoin que ñu wax la ni tane nga yow sa bopp da ngay xam ni man nii dara dalatuma parce que effectivement day fekk euh, chloroquine bi ñu lay jox li li dimbali na la euh, euh, kii bi nu mu tudd encore kii bi ñu lay jox. sirop bi ak vitamine C. vitamine C bi ak dañ lay booster donc dañ lay dimbali dañuy dimbali sa yaram parce que en réalité sa yaram mooy xeex ak ak virus bi moo tax dañu naan souvent. tamit feebar la boo xamante ne day sonal mag mag yi mag yi lay mhm. sonal waaw mhm. mais tamit quoi qu'on puisse dire daanaka bu doy waar la. léegi euh, yow xam nañ ni bi ngay jàng journalisme Marseille nga dem bokk na ci euh, dëkk yi nga xam ne jàngee nga ko fa te ki la dalaloon foofa di la toppatoo mooy Pape Diouf mi nga xam ne mm-hmm. coronavirus gi moo ko yóbbu fii ci Ndakaaru ba nga tëddee l'hôpital dégg loola moom noo def. ah Babacar man ba léegi maa ngi si dégg ndax di ko xamante ne ku sore la man euh, le 19 comme ma la ko waxee le 19 laa dugg hôpital papier ji information bi le 19 ci guddi chaque jour da jëfee moom la njëkk envoyé message 6 heures 7 heures du matin moom la mujjee envoyé message donc euh, du coup ba si jeudi bi euh, mu envoyé message ne ma depuis une semaine une angine atroce me complique la vie, mais encore plus cette nuit. Euh, malgré tout, j'ai eu la force de penser à toi. Mon le message. bonjour président. Euh, oui, je continue à me battre contre ce machin. Euh, mais je pense que l'engine va bientôt disparaître. Je suis convaincu que l'engine va bientôt disparaître. Après, je me battre n'oublie pas ce que j'ai l'habitude de dire. Je te fais confiance, sois fort, reste, euh, euh, sois fort comme un roc, qui t'en sortira. Euh, merci président moom Je suis jour boobu la WhatsApp parce que l'année lendemain je me suis woo ma heures parce que souvent je quoi je pense que j'ai chopé la même maladie que toi bon je ma désolé ou quoi moi ne t'en fais pas euh, ne t'en pas toute la population politique de Marseille est atteinte de coronavirus bon la plus grosse erreur que la France a commise c'est d'avoir organisé ces élections municipales donc nous avons nous sommes tous sortis pour aller voter et nous avons tous fait le coronavirus alors ne t'inquiète pas ça va passer kon moom euh, France la ko la ko dalee ndax dem na Côte d'Ivoire dem Maroc ci diggante bi effectivement France la ko dalee France la ko dalee mais baax na feebar bi bu la dalee yow da ngay boo remonté rek da ngay xam fan la boo ko jëlee boo remonté rek sa petit da ngay xam fi mu ko jëlee quoi normalement donc du coup bu loolu amee mu ne ma euh, dame mu ma les péripéties yi ni mu jógee këram ba ñu egg si hôpital boobu jarul ma wax ko mais vraiment bi ma consulté nee na ma les symptômes si ñi si ñu coronavirus la ma ne ma mais nee na si c'est confirmé demain samedi on m'amène euh, Diamniadio ma ne leen effectivement donc ah loolu dina ma neex parce que bu doon Diamniadio sama doom yi foofu il est interné aussi lui aussi dans la même maladie donc on pourra bien parler football mu ne ma euh, bu ma ma xam naa ne nañ bokk chambre yow comme ça ñu gën a waxtaan parce on avait beaucoup de projets et tout euh, ma ne ko y pas problème président parce man président laa ko doon samedi matin mu est 10h12. finalement je ne pourrais pas venir à Diamniadio mon état est instable voilà c'est le terme que a utilisé mon état est instable après moi, je me suis dit que ne ah bon ne ah, pas bon courage président maintenant non c'est à moi de dire de rester encore plus fort Mbacké donc je à nekkoon c'est ma dernière euh, ak président. après situation dafa compliqué mo amoon ay problème respiratoire ban sax defal ko respirateur artificiel ak yoy ba non la mujjé waaw effectivement man bima bima bima bi ma élection bima ma lolu xamona ni man sama fort intérieur ni moom la woon parce que bu mu doon wax ak man samedi bi saxat fort xamona ni mom la té bu mu génné aduna tamit man wa ambassade france ñoo ma njëkk woo wax man ni pap Diouf jëne na aduna mais na nga garder information de pour pour l'instant sama bo informé kenn du coup affaire bi xawma ma jaaxal parce que dama togo dama taxawon bu wara julli ñu woo ma wax ma ko ma toog ci la tok xaar ni timis jot ma jub julli tok le temps que euh, may rappeler ci ma woon di ma ko wax ci laa gis si réseaux sociaux yi ñun. président Pablo demoon na. ci tank 10 secondes Bakary parce que waxtu wi dem nañu bu fekkente ni ku melni yow am na coronavirus ba wér ba génn loolu la docteur yi wax ni moom nga war a def. Euh, non li ñu lay wax mooy euh, parce que kenn kenn amag kenn amagul vaccin kenn xamagul coronavirus coronavirus bi boo gënee ba xam diñ ko diñ ko laal diñ ko soppee wala doo ko soppee li ñu lay jot wax mooy il faut que sa yaram bi mën continuer xex ak ak virus bi du coup tu es aussi exposé que les autres même si fekkante ni yow avantage bi ngay am moy da ngay am des ay anticorps il lay mën permettre nga xex ak virus bi mais dañ lay wax bo demé da nga moytu donc euh, euh, geste barrière yi ni ñi def au même moment au même titre que les autres mais tamit yow avantage bi ngay am moy yow déjà sa sa yaram na mën na kii bi feebar bi sa am na mën na xeex ak virus bi contrairement aux autres ñi nga xamante ni amuñu ko. Hmm, léegi bi nga ci euh, kër gi euh, noo def ak madame ak euh, xale yi. bon madame ak xale yàlla def nañu ni depuis bi ma affaire bi dalee deux jours après dañu leen ñoo testé parce que damay insister pour ñoo testé parce que ñu ngi fii ak suñu ménagère ay doomu jàmbur lañu mën na leen il faut ñoo testé leen ñoo testé ñoom ñëpp nekk négatif mais bu ma aussi. parce que symptômes yi damay euh, doyul rek damay damay damay naa non balaa may ñëw tamit man yebal gars yi ne leen il ñu dem tester leen. ñu dem teste leen tamit parce que euh, le temps man may dem di ñëw xam na def na euh, kon sama contact yi ak ñoom ak léegi def na léegi seize yu ñëw teste waat leen dëmb seen test yi génn ñoom ñëpp négatif. donc du coup loolu la mais ñoom man bi ma demee tamit j'étais confiné. dañ leen wax euh, nañu confiné wu jabar bi responsable laa am ko xamante nii vraiment xam nga dëggal na gaa yi kër gi kenn daan loon dugg si kenn daan loon génn donc du coup lépp lu ñu soxloon xam nga euh, lu ñu war a tout oto baa indi euh, ñu teg ko si bunt bi moom mu jëli mhm. donc noonu la noonu la noonu la noonu lañ noonu la fagaroo ba confinement bi ba seen confinement bi jeex et tout